alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaan suñu borom mu may ñu dund gu barkeel ñoo ngi koy ñaan mu nangul ñu suñu jaamu yàlla yépp te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc ñoo ngi koy ñaan mu defal ñu aw yiw te defal ñu mucc ndax moom rek mooy ki nga xam ne kum dimbali ba nga tegu ci ak njub kenn mënu laa sànq waaye képp koo xam ne danga sànk mu seetaan la kenn mënatulaa gindi yàlla nañu gindil boppam musal ñu ci suñu ayu bopp musal ñu ci suñu ayu bakkan ndax léeg-léeg nit di wax ne day muslu ci seytaane te fekk jamono jooju moom ci boppam boo moytuwul mooy saytaane boppam ndax li ëpp ci li mu yàqu moo koy yàqal boppam te bakkanam rekk moo ko yóbbe seytaane jaar ci biir bakkanam boobu def ko muy ab euh, dugguwaay boo xam ne li mu ko yàqal lépp ci lay jaar ba yàqal ko moo tax bu nit ki ñëwee di dugg ci diine am baat bu muy wax boo xamante ne day dàq lépp lu dul yàlla waaye day samp yàlla yi kese ci kanamam te baat boobu du dara rek lu dul wax laa ilaha illallah nit ki bu xasee wax ne laa ilaha illallah te mooy amut benn buur bu dul yàlla day tegtale ne dàq na lépp loo xam ne day tegu ci kanamam ba war koo yàqal ab yëngutoom lépp loo xam ne da koo war a tax a jóg wala lépp loo xam ne da koo war a tax a toog wala lépp loo xamante ne da koo war a dugal ci mbir wala loola di ko génnee ci mbir baat bi nga xam ne moo koy ëmbal ab yëngutoom akub dalam benn baat dong lay doon muy e, borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne moom xam ko day tàmbulee ci baat bi ngay wax waaye gëm gi nga koy gëm ak déggal gi nga koy déggal ak bëgg gi nga koy bëgg da lay yóbbu ci ngay tegu ci orientation yi nga xam ne moom la joxe ñëpp moo tax tey bu ñuy waxtaanee wàllu bëgg sax sa xel day dem ci bëgg gi nga xam ne moom la nit ki di war a bëgg boroomam subhaanahu wa taala parce que bu ko xaajoon mu nekk ay ñetti xaaj wala ñeent bëgg gi nga xam ne mooy jiitu mooy bëgg gi nga xam ne moom la nit ki di bëgg boroomam bëgg googu muy bëgg boroomam suñ boroom subhaanahu wa moom itam daf koy bëgg bëgg gi nga xamante ne moom lay bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax mooy ki dox digganteem ak boroomam ngir di ko xamal boroomam nga xam ne yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam benn position rek lay am bu boobaa mooy bë euh, nekk gi nga xamante ne day nekk diggante nit ki ak digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala loolu daf koo wax ba tàyyi qul innama ana basarun mislukum yuuxa ilaya ca wax jooju la bokk borom bi subhaanahu wa taala moo ma yónni waaye man nit dong laa li ma wuutale ak yéen mooy lim ma déey te déeyu leen ko te loolu moo tax du dara lu dut lii tax seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala gën a rattax moo tax nit ki day bëgg boromam subhanahu wa taala loolu daf koy yóbbu ci mu bëgg boppam waaye da koy yóbbu nag ci mu bëgg lépp loo xam ne lu mat a bëgg la sori lépp loo xamante ne ni dañ koy puus ba loola di dox digganteem ak li nga xamante ne daf koy yàqal rawatina nag digganteem ak boromam subhanahu wa taala moo tax laa ilaha illallah di baat boo xam ne daa mel ne dafa tuuti waaye doon baat boo xamante ne lim ëmb ci dundu nit ki nit ki ci boppam mënu koo jeexal ci ak dundam mën ngaa wax ne système mu dundug lëm la moom baat boobu nga xamante ne mooy euh, laa ilaha illallah ndax bu fekkonte ne ab baat la bu ñuy wax ci làmmiñ rek tudd ko dem du jar mukk ñuy takk ay xare di xeex du jar mukk ñuy rey nit ndax waxal ashhadu an laa ilaha illallah mu ne duma ko wax ndax xam na bu ko waxee engagement yi nga xam ne moo ko cay fekk moo tax ki gën a metti ay mbugal digganteem ak borom subhanahu wa taala mooy ki wax baat boobu te fasut yéenee matale engagement yooyu ndax ñetti nit rek ñoo am bu ñu xaajee nit ñi ki nga xamante ne baat boobu di ashadu an laa ilaha illallah moom fasu ko yéenee wax ñi di ko tuddee ab yéefar ak ki nga xamante ne fas na ko yéenee wax ba noppi wax ko di ko jëf ni mu ware ñu tuddee ko ab jullit ak ki nga xam ne moom da koy wax rek jàppe ko baat bu muy tudd ci wu làmmiñ waaye du yàq dara ci programme am ñu tudde kooku ab naafiq te ku ne xam na ne ñoom fii darakil asfali minan naar ña nga ca euh, euh, suufu sawara fa gën a suufe mbugal yi gën a metti borom bi subhaanahu wa taala jël ko jëmale ko ci ñoom ndax lan baat boobu ñuy wax te mooy ashadu an laa ilaha illallah baat la bu ñu tudd ci seen làmmiñ ndax dafa tuuti waaye doonut baat boo xam ne noppi nañ ngir di ko jëfee ci seen xol te loolu dafay nekk jeexital bu rëy moo tax ñi xamoon te honnête te amoon ak dëggu fa suñ ko yéenee wax ku ne xam na ne bàyyi taxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu tëddee ci euh, lalu sukuraatam war a dëkkaale jeeg boromam yonent bi alayhi salaatu wasalaam tiim na ko di ko wax ne ko waxal baat boobu ndax ma man cee sukkandiku ba layal la sa digganteeg sa borom waaye xam gim xam baat boobu ak li nga xam ne moo ci nekk te nit ki war koo bàyyi te noppeegut moom ngir bàyyi ko loolu moo tax fasu ko fësu ko yéenee wax kon muy baatu laa ilaha illallah euh, di loo xam ne ñun ku tiit wax ko booy déglu làmb ji wala nga koy seetaan sax ñu naan la laay lay la laa ngay dégg ñu koy wax kuy taasu sax danga ko ci boole euh, léeg sax nit buy jël aw wérd ñu ne ko boole ko ci di ko wérd yooyu yëpp bu amee sens bu mu am jubluwaay bi dëgg mooy xam nag bi nga waxee ne euh, laa ilaha illallah yow loolu da nga koo wax ba noppi mu yem ci saw làmmiñ wala da koo fas ci sa xol bu fekkee da nga koo fas ci sa xol da ngay xam ne sa borom subhanahu wa taala moo la bind wàccee la jaar ak yow ci ay étapes yu bari état bu bind ba ci coobareem état bu jaar waay ya ja aadama jaaroon ci aljanna état bu wàcc ci àdduna waaye nag état bu dégg ndigal yi état bu bàyyi tere yi eh, ak tolluwaay bi nga xam ne moom la seytaane di ànd nit ki ci xolam di ànd nit ki ci xelam di ko jax-jaxal di ko buux ci yooyu gëm gi muy gëm yàlla borom bi subhanahu wa taala def ko mu nekk kilifaam mooy liy dox nag digganteem ak loolu empêché ko ba nga xamante ne du topp bakkanam du topp saytaane du woon ginnaaw laa ilaha illallah ndax bu boobaa rek sànku na cànkute goo xam ne sànku gu sori la moo tax borom bi subhanahu wa taala ci alquranul karim muy wax ne yaa ayuha alladina amanu lam ca teg mooy aminu billahi wa rasulihi walkitaabi alladi nazala ala rasulihi walkitaabi alladi wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axiri faqad dalla dalalan bahida borom bi subhanahu wa taala bi mu ñu wooyee woo ñu gëm ñépp ba ñu wuyu ko lim ñu wax mooy gëm leen gëm leen yàlla aminu gëm leen waaye door a wax nag aminu billahi wa rasulihi gëm yàlla gëm yonent bi gëm téere bi ma wàccee ci yonent yàlla muhammad muy alquran gëm téere yi ma wàccee woon muy lu ko jiitu nga xam ne ngëm-ngëm moom day daal di nekk leneen waaye ku weddi ku weddi kon ndax mooy ki ne gëwuma loolu wala ndax mooy ki wax loolu ci làmmiñam waaye fasu ko ci xolam fasu ko yéenee jëfee weddi yàlla étape la wa man yakfur billaahi weddi malaayika yi weddi téere yi yàlla wàccee weddi yonent yi weddi alaaxira weddi yàlla weddi malaayika yi weddi téere yi weddi yonent yi weddi àllaaxira nga xam ne tey ngëm yàlla juróom a ngi noonu ba ko juróom benneel nekkoon gëm dogal juróom yépp la nit ki di gëmandoo nga xam ne benn benn benn paquet su lay doon boo xam ne ci biir ba ca kaw mooy nga gëm ne yàlla ko am la ñu jàngal la ko ba nga xam ko ñun kenn ku ne ak ni mu gëmee yàlla moo tax sax ba léegi ñi ngi jàpp ne yàllaa ngi yónni ba léegi léeg-léeg sax ab jeeg génn ci télé bi ne yàllaa ma yónni musóoru sóoru eh, di di yuuxoo ka nu mu tuddati ñenn ñi di ci commentaire ak am jotum di ko partagé problème bi kay mooy bu ne yàllaa ma yónni te ñun yàlla yi daa bari ci ñun dañoo war di laaj sax moom ban yàllaa ko yónni ci yàlla yi sénégalais yi jàpp bu fekkee nag niñ gëmoon te moom nga xam ne moom rek mooy yàlla baatu laa ilaha illallah bii nekk ci ñun loolu sax du ñu jëlal cinq minutes ci commentaire du ñu jëlal sax deux minutes ci ñu di ko xool wala ñu di ko jox benn importance parce que dafa am koo xam ne dañ koo war a jàpp yeew ko faj ko wala ñu ndëppal ko wala ñu génnee ko ay sarax wala ñu ñaanal ko waaye di ko def nag événement ba di ci commentaire jël ko lu sérier da ngay yëg ne ki koy jël mu sérieux pareegut pareegut waaw dafa mel ne dañoo burle ay étapes yu bari booy déglu rajo yi léeg nga déglu koo xam ne bi muy waxtaan mi ngi doon waxtaane xëy na azaka wala mi ngi doon waxtaane miraas wala mi ngi doon waxtaane wàllu sëy wala mi ngi doon waxtaane benn euh, benn benn niveau bu kawe waaye ba mu ubbee téléphone bi ba léegi li ko jullit bi di laaj mooy bi may bi may julli fàttee xunóot nan laa war a def ndax sama julli gi daa yàqu man damaa jaaxla dem ba léegi nga ne ko lu la jaaxal mu ne la man daal damaa fàttee xunut kooku day coupé rek keneen woote léegi di la laaj naan la waaw yonent bu bu yàlla yónni waat ndax am naam déet nga xam ne moom balaa balaa tal yenn yi ñun ñun ni ñuy duggee ci diine dañ ciy dugg waaye diine ji da dul ànd ak formation bu tegaloo boo xamante ne dañ lay jàngal li war a jiitu jiitu li ci war a topp topp ci li nga war a dund nga dund ko ba noppi nekk ci sa bopp am na koo xam ne li muy laaj wala li muy li muy dox di ko corriger moom boo ko dellu si waatee yëf yi ci boppam li mu war a xam lépp xamagu ko maanaam moom moom pareegut ci boppam pareegut ci boppam pareegut ci boppam ci njàng gut ci boppam ci atte pareegut ci boppam ci doxalin waaye toujours li muy xool rek mooy euh, suñu imaam ba mu defee nangam lu ci lislaam wax ba diw defee nangam lu ci lislaam wax jamono ji muy laaj loolu moom mi ngi waroon a doon ci bu ci faratay julli ñaata la war a doon ndax naa ko ndax man sax sama jàng alxuraan ndax ni ma koy liire baax na ndax man fer naa ijji ba mën a liir alxuraan ban relation laa am ak moom ndax maa ngi koy jàng yan àq laa am sama digganteeg sama borom subhanahu wa taala yan àq laa am sama digganteeg yonent bi alayhi salaatu wa salaam yan àq laa am sama digganteeg sama bopp day mel ne yooyu dañ koy dañ koy tëb moo tax ñu mën a wax laa ilaha illallah ba sonn moo tax ñu mën a fees jàkka yi ak jumaa yi ba doyal moo tax ñu mën a dem ca euh, xew-xew yi ñu wooteel diine yëpp ba doyal waaye dañuy dem ba ñëw duñ waxtaane diine kii waxtaane diine duñ ko déglu waaye kii waxtaan ci suñ bopp wala muy waxtaan ci nit ñi wala muy waxtaan liñ mën a làmb kooku nag mooy ki nga xam ne moom la ñuy partagé moom la déglu moo tax baatu euh, laa ilaha illa allah benn baat la wala ñaar bu ma waxee ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ci ñun koo ci poñe woon ne ko wax ko nit a ko naan bu la naree rey kay nga wax ko te dem loolu mooy ak naafeq mooy wax ko te gëmoo ko te dem sa yoon nee ko duma ko wax wala nga ne wax naa ko ta dem ñi nga xam ne ne dañoo amoon euh, maanaam koy lu ñuy wax ñu xam sens bi ak lim leen di yóbbee lépp nga xam ne danga naan bu ma xasee ba wax ashadu an laa ilaha illa allah man dootuma naan sàngara su ma waxee ashadu an laa ilaha illa dootuma tongoonte ab jullit lu ëpp ñetti fan su ma waxee ashadu an laa ilaha illa allah dootuma lekke sama loxo càmmooñ su ma waxee ashadu an laa ilaha illallah dootuma ñaaw njort ci nit ñi su ma waxee ashadu an laa ilaha illallah dootuma fuusi ràndiwu su waxee ashadu an laa ilaha illallah dootuma tardé waxtu yi juróom su ma waxee ashadu an laa ilaha illallah damay fonk jàng alquran te damay jullee ji ca jàkka ja te damay fonk samay waajur te damay nangoo liggéey damay bàyyi trian damay damay bàyyi di lepp te narumaa fay damay bàyyi di faussé di faussé heure yi may liggéey damay bàyyi jëw damay bàyyi ngistal damay bàyyi rëy gis nga baat bi yi mu àndal daf dafa rëy yoo xam ne tey bu nit ñëwoon di tuub au lieu que ñu ne ko waxal ashadu an laa ilaha illa wa ashadu anna muhammadu rasulullah mu ne wax naa ko nga ne ko ñëpp ayam demal mu génn ci pénc mi jàpp ne léegi man damay wax ashadu an laa ilaha illa waaye fen moom garaawut man na maa fen fen sax euh, donc ci diplomatie la bokk àdduna bi faaw nga mën a fen mën a masla lijjanti génn ci mën a mën a trian mooy ak yeewu mooy mooy nit ku am xel mooy dimension bu kawe mën a fóotaraan di wu fexe bay dund mooy mën a lijjanti day tegtale ne baat bi dañ koy wax waaye ñun ñoo ko dundagut wala xamuñu sax baat bi ñu wax li mu ëmbaale lépp lépp lépp détaillé luñu ko ba ñu jot ci bu ko defee ñu am problème moo tax booy xool problème bi am ci àdduna bi yépp tey delluwaat léeg-léeg nga joxoñ ko ci jullit yi ki amut seetlu da koy delloo ci diine ji te fekk affaire bi du foofu waaye kii jëfandikoo yëf yi te xamu ko toujours moo koy jëfandikoo foo xam ne waru koo waru ko faa jëfandikoo wala mu dunde ko noo xam ne waru koo dunde moo tax nag ñi nga xam ne dañ koo xamoon te xam liñ ciy fekk lépp te noppi woon ngir bàyyi ko jaraloon na leen ñoom ñu rey leen waaye duñ ko wax néew ma loolu dafa baax waaye ñoom jaraloon na leen ko ñi nga xam ne xam nañ li muy jariñ ñoom wax ko te dund jaral na leen ñu wax ko te joxe seen bakkan te pénc mépp wax ko parce que yi ma wax léegi yépp ne ay sikk la bu ko ñëpp ànd bàyyee jamono jamono jëm ci kanam yàlla xam ne ne toppandoo gu bari gi am ci pénc mi nga xam ne lu ñëw lu ñëw lu ñëw rek fukk jullit yi su ma nee jullit yi ci ci gisin bu gàtt bi may xool mooy ci suñu réew parce que réew mi dañuy wax ne ko dëkkee ñi ci ëpp ay jullit lañ waaye li ñuy fëkk ci ay événement di ñu fëkk ci ay euh, maanaam ci ay yëf te ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy yëkkati nit ñi ci réew mi ñooy wàccee nit ñi waaye ñi ñuy yëkkati duñ leen yëkkati ndax ñoom ñii ñooy ñi nga xamante ne bi ñu waxee ashadu an laa ilaha illa baat boobu dafa def jeexital ci ñun ba ñii lañu war a jël teg leen ca kaw déedéet waaye bu ñuy daanaka ak njullit la goo xam ne juddoo la ci boole juddoo la ci boole peut-être yow sens bi nga am mooy nga judd ñu tuddee la turu jullit nga gis sa papa di julli ji léeg-léeg nga di ko toppandoo weeru koor jot ngay woor sens boobu nga am ki nekk leneen lu dul jullit ci réew mi ñàkk sens bi mu am mooy daa judd juddoo ci famille boobu waaye est-ce que boo juddoo woon ci famille boobu fii nga toll nii am nga effort yooyu defal sa bopp ba bokk si est-ce que am nga ko wala moom est-ce que sax fa mu nekk kon yow doo nekk ci nekkin wu ko gën a doy waar ay laaj la yoo xam ne kenn ku nekk da nga koy laaj sa da nga laaj sa bopp moo tax borom laxdari yu doon wax naan mu kàllaf mi bu demee ba xàmmee mooy bu demee ba ba euh, ba xelam nekk ci moom ñu togg ko jëf li mu war a njëkk a def mooy tax xeexu imaani yi mooy mu xool nag ndax man ni ma gëmee nii noonu la wala déet al imaan mu mu xool ko mooy yàlla mi ma ne moom laa gëm ndax moom laa gëm ne moo may wërsëgal ba ba ba li dajee ci melokaani borom bi subhaanahu wa taala yépp jeex hmm? bu ko defee nga jël nag malaayika yi bu ko defee nga jël téere yi yàlla wàccee alxuraanul karim nga jël ko ban relation nga am moom ban relation nga am moom ndax yow da ngaa jàpp ne alxuraan dafa dafa xewi da nga naan waaw waaye wala da jàpp ne danga nga koo war a dund ndax yow jéem ngaa nga yow jéem ngaa comprendre dara ci mission maanaam ci message bi alxuraan yor wala da ko bëgg a ëw takk rek wala nga xooj ko naan wala nga sangoo ko rek dem ban orientation la la war a defal alxuraan téere boobu nga xam ne dañ la koy laaj boo tëddee ci biir bàmmeel ban relation nga am ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci déglu ay ndigalam déglu ay tereem ba la waxee ne la moo wax lii te muy lu wér jooju wax dootoo tegati jenn wax ci kawam ak ku mën bu ñu la waxee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii la daan dunde lii te wax ji ba leer naññ amatu sentiment booy teg sa kaw ndax da lay gënal ñëpp da lay gënal da lay gënal ndey gënal la bàyyi lislaam nag bu yàlla waxee ne nangam yonent bi ne leen gënal seen ndey gënal la seen baay daa jëlale keneen nit ku dul ndey ak baay daa jëlale keneen nit ku dul ndey ak baay bu waxee ne na la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gënal sa ndey gënal la sa baay ndax li tax mu jëlale ko mooy suñu borom bi mu waxee boppam te boppam gën koo ñor ñëpp suñu borom boppam moo ko gën a ñor ñëpp ndax lenn lu ne ci àdduna sax nee na danaa ko baale waaye boo ma tegul sama place rek da nga ma jot boo ma bokkaale rek sa jëf yëpp yàqu leneen loo fi def lu dul loolu mën naa laa baal bi mu jëlee boppam boobu ku gën a ñor ñëpp teg ko ci wet wa abudullaha wala tusriku bi shay'a lam ca teg mooy wa bil walidayni ihsaana na nga rafetal jëme ci sa ñaari wayjur lu dox sa digganteeg sa ñaari jur te du njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci farata loola matu ko fël ko mu jàll kon bu fekkente ne nit ki nag gëm na gëm na gëm na tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci dayoo boobu nga xam ne moom la am parce que day dugg ca ca maanaam ca atte ba mu jox borom bi subhanahu wa taala ndax moo koy xamal wax jooja bu xasee wér amul benn sentiment bu muy teg ci kawam ñun waaw waaye la ñuy wax waa mais loolu boo xoolee àdduna si réew sàngam nii lañ def ñun nii lañ def ba ba li ñu dal lépp di ñu dal nga xam ne li mu waxoon ne daa araam bu ko kenn lekk ñun dañ koy dañ koy lekk àdduna si dañ koy lekk yi mu waxoon ne bu ko bu ko bu ni kenn solo àdduna si dañ dañ koy solo li mu waxoon ne bu ñu kenn jëflantee ci ay contrat dañuy jàpp ne loolu mën nañ koo jëflante suñu contrat ak suñu doxalin ànd ak loolu yëpp nag ñu ne nag dañuy dund dund bu stable dañuy bàyyi ñu daal mbir mi ni ñu neex lañ koy defee waaye nag ndam rek lañ ci am mbokk yi ku ne xam na ne loolu mënta nekk ku ne xam na oto bi bu ñu la ko joxee ne la def ci essence nga dem ci station bi ne ko dëgg la essence nga wax mais essence ndox la ndoxin ndox la baal ma def ci ndox mu sedd boo ko ci duyee ba mu fees xam nga ne boo yaakaaree ne da ngay demit doo dem moo tax ñu mel ne ñuy dem te fekk dañuy mel ne demuñu lu ne ñu di ko dégg ci àdduna si muy dalaate wa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan damka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ahma loolu la borom bi subhanahu wa taala waxoon kon baat bu gàtt boobu di baatu laa ilaha illa allah dañuy wax ne sax yonent bu yàlla ma sa yónni loolu nga wax saw xeet wa ila aadin aqaahum huuda lam waxoon mooy yaa xawm ihbudu llaha maa lakum min ilahin xayri maa lakum min ilahin xayru afala tattaquun yonent yàlla huut loolu la waxoon aw nitam yonent yàlla saalix loolu la waxoon wa ila samuuda aqaahum saaliha qaala yaa qawmi abudu llaha maa lakum min ilahin xayru huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha fastaxfiruhu summa tuubu ilayhi inna rabbi xaribun mujib loolu la yonent yàlla saalix waxoon aw nitam yonent yàlla noox laqad arsalna nuuxan ila xawmihi inni lakum nasirun mubin loolu la leen wax man ab waaraatekat la waaye nag li ma leen di wax du dara lu dul an laa taabudullah inni aqaafu alaykum adaba yawmin alim loolu la waxoon kon yonent yëpp ku mas a ñëw li nga wax mooy bu leen samp kenn ci seen kanam jàpp ne moom ngeen di jaamu ku dul yàlla ni ñu ko doon waxee nag ci façon langage boobu la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee loolooy baat bi nga xam ne moo gën ci lu làmmiñ di tudd waaye nag bi ko làmmiñ tuddee ba noppi mooy baat mooy pas-pas bi nga xam ne moom rek la ab xol war a fas bi ko xol fasee ba noppi mooy li nga xam ne moom rek la ay cir war a jëf moo tax ci kanam tuuti bu imaam ñëwee ba ñu julli ñu ne ñun ñëpp ñu ànd naan ko iyaaka naabudu iyaaka naabudu liñ la waxoon ne la laa ilaha illa li koy firndeel mooy ñëw nañ ndax jaamu moom yow dong lañ koy defal maanaam déggal la jox la su suñu nopp ne la sol ci loo ñu sol ñu jëfe ko yow lañ ciy déglu defal ñu ko léegi nag ñiy jàngale dañuy wax ne bi nit ki waxee iyyaka na'budu war naa ne tekk nag delloowaat boppam ndax am na ku koy tontoom déet ndax da koy wax dëgg la yow kay man rek ngay jaamu wala da ko naan moo xanaa du yow mii léegi bi ngay dugg rek nga def nangam te boo génnee ca nga jëmaat bi julli gi benn benn genre pause la ci yow rek mu ne ko wa iyyaka nasta'in moom itam day daal di delluwaat ci loolu door a wax borom bi ne ko ihdina siraat al mustaqim xam nga kii ñaan yàlla ne ko teg ma ci yoon wi yoon wu jub bi asirat al mustaqim ba noppi taxaw ci mbooy gi te saytaane moom mbooy gi fasul yéenee dem bi ko nee teg ma ci yoon wu jub bi da ciy tegu tey dem parce que dafa mel ni ñun ñëpp dañoo ànd soobu ci benn yoon loolu mooy yoon wu jub wi yoon wi bu ñu dox te jàdduñu ca suñu borom lañ jëm te bu àggee mu gërëm ñu waaye léeg-léeg ñu dox ba mu yàgg am ku jàdd ndax seytaane mooy taxaw ci territoire bi di ñu woo di la dévier euh, mooy la aqudanna lahum siraataka al mustaqim loolu lay tekki mooy seytaane mi ngi ci mi ngi ci yoon wi yoon wi ñu yóbbu ñu jëm ci borom bi mi ngi taxaw ci territoire bi am na koo xam ne euh, da koy woon benn pom naan ko ba mu xool ko mu woon ko mu jàdd mooy koo xam ne àdduna ak poññetum àdduna moo ko tax a jàdd tuub gi li muy teg si mooy taaba mooy mu dellu si mu dellu si dab siwaat mbooloo mi bi mu jàddee xool ni ya man damaa juum damaa jàdd mooy naa yoon wi léegi nu may def damay daw dabiwaat mbooloo mi kon mooy damay tuub day daal di dawaat dabe yi ñu ne ko weesoo gut ndax ba léegi ñu ngi dox te àgguguñ te mbooloo mi dañoo bari boo tuubee rek dugg si waat nga ci biir group bi moo tax kii ñaan borom bi subhanahu wa taala teg ko ci yoon wi da ciy góorgóorlu nag te bàyyi yëfi saytaan yi te bàyyi yëfi saytaan yi nee nañ waa ji daana ca wan ak wanaan auzu billahi mina sheytaani rajim auzu billahi mina sheytaani rajim ay waay yàlla nañu yàlla musal ci saytaan yi léegi nag euh, nee nañ Serigne Touba dégg ko woolu ko mu ñëw mu ne ko da bàyyi yëfam boo bëggee mucc ci moom da ngay bàyyi yëfam am na loo xam ne ku ko takkoon toog fële léegi weñ yi biiw la waaye boo setee wecc am na nooy mel léegi weñ yi sori la léegi nag ku bëgg a mucc xam nga kii bëgg a tëggi sabar ba pare naan auzu billahi mina sheytaani rajim muslu eh, nee na day jate tari tifli ci galen bi tàmbulee tëgg ñi defaru tàmbulee fecc ba pare nga ne seytaane soril dangaa ngaa yor lu mu bëgg danga koo woo te boo ko wooyee faaw mu ñëw yàlla nañu yàlla musal ci moom ndax mooy yàqkat bu mag bi eh, nee na nag muslu ci borom xaj bi moo gën di jéem a tibb suuf fas ko yéenee sa la xaj bi laakin rujoo anaa li rabbil kalbi moo gën a noppale foofu ci ñoon coonab dóor bi yàlla ñu yàlla musal ci moom moom mi nga xam ne kum ci musal nga mucc musal ñu ci xew-xew yi jamono yi musal ñu ci jàngoro yi ñu dégg ci àdduna bi musal ñu ci jàngoroy yaram yi ak jàngoroy ruu yi ak yi événement yi eh, defal ñu jàmm ci biir réew mi defal ñu ko ci réew yi ñu wër xaasaaw billaahi tawfiq salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد والصلاة والسلام على سيد المحسنين وإمام المحجرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول الله تبارك وتعالى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 فرض علينا وما فرض الله علينا فرضا ولا أوجب واجبا إلا ليعود خيره علينا قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن الهدى الذي جاءنا به سبحانه وتعالى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم حبه على كل المخلوقات والموجودات فمن امتثل امره تعالى انتفى عنه الخوف والهم والحزن ولا يضل ولا يشقى mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante yàlla lu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ragal yàlla ragal yàlla bi nga xam ne suñu borom moo wax ne képp koo xamante ni ragal nga ko yàlla dina la jubal jubal say mbir jubal sa pas-pas jubal sa jikko jubal say wax képp koo xamante ni ragal nga yàlla na nga xam ne am nga texe bi nga xam ne mooy texe bu mag suñu borom subhanahu wa taala dafa farataan ci ñun ñu bëgg yonent bi maanaam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul lu nu sopp nekkul naafila waaye farata mooy loo xam ne soo ko defee di nga am tiyaaru am ngërmaaneel yàlla waaye nag soo ko ay daan moo la ciy te bépp farata boo xam ne suñu borom farataal na ko ci ñun muy loo xam ne da ko waral ci ñun def ko ngir boppam daf koo def ngir yiw wëccee jógee ak xéewal ya del suwaat ci ñun bokk na ci yi nga xam ne feeñal na loolu mooy aay bi xam ne moom la wax ne su ma leen indee lay koo xam ne topp nga jub googu kooku du du ñàkk a tere njub boobu nag da cee bokk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa kon képp koo xam ne bëgg nga soobu ci njubu borom bi subhaanahu wa taala njub googu mën nañu wax ne mooy système de vie bi nga xam ne mboolem yonent yi ci lañ tënkuwoon ki nga xam ne moo ci gën a màgg gën cee kowe gën cee sell gën cee jege boroomam gën cee xam boroomam mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lii wane ne sopp ko farata la mooy topp njub gi mooy farata te topp njub googu da cee bokk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii wane ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy jural ay xéewal xéewal yu addina ak xéewal yu àllaaxira yàgg nañoo wax ci mandarga yii wala ne nit ki bëgg na yonent bi wax nañ ko waxati mënte lu ñu dëntu ko répété mandarga yi borom xam-xam yi lim nañ ci lu baree baree baree waaye boo koy tënk da ngay wax ne Seydil Hadj Malick waxoon radiyallahu taala anhu wa laysa ala hubbin bila amalin wa taabi'an sunnata al-muxtaari tartani nee na di organiser ay gàmm di ko tuddee yonent bi di organiser ay bés di ko tuddee yonent bi di amal ay njàng di ko tuddee yonent bi loolu mooy wane bëgg yonent bi bëgg yonent bi ni koy wane mooy topp mboolem sunnaam sa kemt lay kàttan loolu mooy bëgg yonent bi am na ñoo xam ne seen bëgg yonent bi yàlla nangu na ko te mosuñoo organiser bés bu yonent bi mosuñoo moo suñoo organiser ay jàng te yéen ñëpp xam ngeen ne gàmmu yeeg jàng yi ci jamono yi ñu toll dafa am business bu bari bari bu ci laxasu yal nañu yàlla xettali waroon nañu wus di jël turu yonent bi ak mission bi di ko wutee àddina saxaaba yi ndoxalee mu wóolu woon loolu Sëriñ Hajj Malick nee na mbëggeel gi ngay woote ci yonent bi kenn du ko nangu lu dul nga jëfee sunnaam lépp luñ la wax ne sunna yonent bi la jëfee ko sunna aussi wax yi bariwul mais boo doon firi mi gën a gàtt te matale da nga naan sunna mooy système de vie bu yonent bi sunna mooy lépp loo xam ne yonent bi da koo def ci ay pas ci ay jikko ci politique ci culture ci social ci moral loolu yëpp dafay dugg ci sunna te bokk na ci sunna yi nga xam ne julli ni ñàkk nañ ko mooy taxawal état bu dëppoo état bu yonent bi sunna boobu mu ngi xaar umma bi daanaka da leen te yooyu ci sunna yi ci la bokk sunna yi da cee bokk taxawal maanute taxawal justice ci àddina bi sunna yi dafee da cee bokk xeex tooñ dind ko ci bi su ko defee niveau yi nga xam ne sunna yi am nañ ko dañoo wuute dañoo gën a foorante gën a rëyante Seydi Hadji Malick nee na wax ji boo xoolee tëggin wi ci nga war a xam ne nit ki dafa war a topp sunna ba dee dafa war a xeeñtu sunna ba dee wa taabi an noonu boobu noonu tawkiid la na nga topp loo mën dafa loo mën gëstul sonnal xoolal liy sunna senkal boo defee loolu tam tani di nga màng xéwalu addina di nga màng màng xéwalu àllaaxira kon loolu mooy tënk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa mooy di jéem a jaar fa mu jaaroon di gëm na mu gëmee woon yoroon jikko ya mu na mu daan doxee na mu daan waxee nga jëm na mu daan doxalee nga jëm koo roy ci loolu boo ko defee di nga am meññet moo xam ne bëgg yonent bi da koy joxe meññet bi nga xam ne moo gën a rëy ci bëgg bi di ko joxe mooy yàlla suñu borom da lay bëgg te mbëggeel yi bi ci gën a am solo mooy mbëggeel gi jógee ci borom bi jëm ci jaama loolu moo taxoon prophète yi tout seen traite ngir wut ngërëmal ndey borom bi looloo taxoon saxaaba yi tout seen traite moo taxoon ñu bàyyi seen réew bàyyi seen alal ngir yàlla bëgg leen soo bëggee suñu borom bëgg la nag wenn yoon képp la am muy bëgg yonent bi sallallahu alayhi sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni fattabi'uni mooy da ngeen may bëgg ma fattabi'uni doo ko firee da ngeen may topp mais da ngeen may bëgg mbëggeel bu jur topp loolu lay firi parce que koo toppul koo koo bëggul ko topp koo bëggul doo ko roy fattabi'uni mooy da ngeen ma bëgg mbëggeel bu dëggu mbëggeel bu dëggu mooy di ko roy toxasewu ilaa وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع nee na yow yaa ngi mooy yàlla te bu ñu waxee nga ne bëgg nga ko mu ne loolu de lu yéeme la su fekkoon bëgg yow li ngay woote dëkkuloo ci sa borom di nga ko topp parce que nit ku nekk da ngay topp di roy di toppandoo ko bëgg kon fattabi'uuni yuhibbukumullah bëgg yonent bi di ko topp li mu lay jural mooy yàlla bëggam yàlla nga suñu bëggee moom li nga doon mu am nga ko fa laytaka tahlu wal hayaatu mariratun wa laytaka tarda wal anaamu xidaarun ida saxa minka al wuddu fal kullu hayyinu wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu loolu la Seyda Rabia daan wax ne ko man bu fekkee ñam naa la xam li ngay sax lu ma ñamati day def waaw boo kontaanee ci man fàlleekuma leneen man soo bëggee ci man mbindeef yëpp bu ñu melee topp toogu moom kon fexeel bëgg yonent bi soo ko bëggee rek yàlla mën na la bëgg ñaareelu meññal bi ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy boo ko bëggee moom da lay bëgg yubaadiluka alxubba bil xubbi li nga ko lebal da lay fay ba wis la moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne képp ku ma lebal lu baax fay naa la képp ku ma mos a defal njëkk fay naa la ba wis la ba mu des benn nit mooy Abu Bakar Siddiq kooku yàlla rek laa koy bàyyi képp ku def lu baax yonent bi yonent bi fay na la ci dundam balaa muy jëm àddina nee na Abu Bakar rek. la xam ne moom fay ko li ko defal ne te loolu sax dafa baax waaye Abubakar bu doonee lim doon yonent yàlla Muhammad moo tax daf ñuy war rek reconnaissance ak di fay njëkk ak teraanga loolu la ñuy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko bëggee bëgg na waaw ku yonent yàlla Muhammad bëgg na ak yow lan moo fi desati am nga lépp li ñu wane loolu waxuma sax nit ñi. mais xeeru montagne yi mu bëggoon sax danañ la bëgg bés jógee na ci xare ba tollu Uhud di ñëw am na Seydina Anas ne ko Anas inna Uhudan jabalan yuhibbuna wa nuhibbuhu ne ko montagne bii di Uhud de daf ñu bëgg ñun tamit ñu bëgg ko waaw kuy bëgg montagne di bëgg ay jamaadaat di bëgg ay nabaataat parce que dañ laa bëgg naka ki nga xam ne doomu aadama la moo tax saxaaba yëpp bëgg na leen ba gis leen kon meññeetu bëgg yonent bi mooy dem ciy jëloon yonent yàlla Muhammad bëgg la te ku yonent yàlla Muhammad bëgg nag léegi yow am nga leen beneenu meññeet bi mooy ki nga xam ne dafa bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay nekk rafiqahu fil janna yow ëllëg bu nit ñi di dugg aljanna aljanna ay dëkkuwaay yu bari la waaye fi yonent bi dëkk foofu ngay dëkkaale moom sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla defal loolu li ciy firnde mooy saxaaba bii nga xam ne xaleel la am fukki at ak ñett fukki at ak ñeent ñu koy wax Rabiatu bnu Kaab bi al Aslami Seydina Rabia dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba da daan jógee kër ndeyam ak bàyyam ñëw di fanaan ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yonent bi tëjee mu tëdd ci buntu bi ne mën na am yonent bi am soxla ci guddi gi lu mu soxla ci guddi gi mu doxal ko ko bés sang bu tedd bu jóg di bëgg a jàpp naka la bi ubbi rek mu duy satale bi teg banque yonent bi jàppee yonent bi xol bi set mooy li ma leen wax ko lebal lu mu fay la bi mu jàppee ba pare ci guddi kooku moom ak Rabia ak yàlla mu ne ko Rabia sànni tool sànni marchit na ko waxal loo bëgg ci àddina ma defal ko tey tout de suite loo bëgg léegi léegi laa la koy defal loo ko ko. Rabia nekk xale fukki at fukki at ak ñeent ci li borom xam-xam yi wax Rabia ne ko man lenn rek laa bëgg lenn rek laa bëgg te yow boo toogoon place Rabia lan ngay tontu nga xam ne yow loo bëgg tout suite mu am Rabia ne ko Seydina Rabia ne ko lenn rek laa bëgg bëgguma leneen uriidu muraafaqataka fil janna damaa bëgg ëllëg foo dëkk ci àjjana ma dëkkaale ak yow loolu laa bi mu waxee loolu mu mel ni tontu bi dafa bett yonent bi yonent bi sikki laajaat ko ne ko awa xayra dalika laa rabia ndax amul leneen loo bëgg xalaatal waxal leneen loo bëgg ma wax noonu rabia ne ko loolu képp laa bëgg yaa rasulallah tey de bu doon jamono ji nga laaj ko benn jeune danaa la damaa bëgg a dem Amérique dama bëgg a doon milliardaire bu doon nitu àddina yi man kañ nguur gi rek damaa bëgg a nekk président nañ ma fal ministre nañ ma def directeur nañ ma def nangam ak nangam loolu mooy doon tontu bi ci jamonoy tey waaye Rabia nee na ko man lenn rek laa bëgg uriidu murafaqataka fil janna waaye tontu bi ko yonent bi tontuwaat moo gën a yéeme yonent bi nangulu ko ci saa si daf koo tegal charte ne ko ah kon aljanna nga bëgg nag te da ngaa bëgg dëkkaale man li la koy may lenn képp la mooy a'inni ala nafsika bi kasrati sujud loolu moom moo tax lay wax ni nekk nag comme mbiru aljanna ak dëkkaale man dafa am biru bari looy naafila ala ala nafsika bi kasrati sujud ulama yi dañ ne loolu du julli farata naafila la borom xam-xam yi jàng dund Seydina Rabi'a yi nee nañ jiir ku dundam maa naraahu illa raaki'an aw saajidan li des ci dundam yëpp xale bi ñu dund ba faat foo ko fekk mu ngi julli mu ngi julli mu ngi julli ko. ndax benn jubluwaay la am muy bëgg yonent bi bëgg a dëkkaale moom aljanna saxaaba yi liñ daan xool ci yonent bi àllaaxira la waaye ñun tey yonent bi àddina lañ koy wutee yonent bi àddina lañ koy wutee yonent bi business lañ koy def dañ koy wutee xaalis di ko wutee daraja di ko wutee loolu gàcce la ku ci nekk yàlla na ci yàlla dindi yàlla na la ci yàlla dindi parce que lu lu fooree ni yonent yi kenn du ko wut jëm di ko wutee métti addinaa yi bii yëpp méttiwul yonent bi kenn wut koo wutee addina beneen bi mooy waaw foofu aussi ñi yombalal nit ñi aljanna nañ ko bàyyi xam nga fii tey am na boo am na tey koo xam ne boo ko bàyyiloon tooram mbaa nga doon dox ko takku million mu ne la waroon naa la aljanna te gis nga kii li mu defal yonent bi mais garanti wu ko kon nag ko ayni ala nafsika bi kasrati sujud ku jàng lislaam rek yëf yi leer ci sa bopp de boo jàngee saxaaba yi ni jëflante ak yonent bi di nga xam ne yu bëri yu nekk fii tey ay naxaate la beneen bi mooy képp koo xam ne bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dina la jox ci meññeet bi fii ci àddina mooy da ngay dem ba yegg ci daraja bi nga xamee ci ngay ñamee li gëm yàlla di jaf di saf nit julli na téeméeri at ñamul caf ku julli nit dund na géej gi dundam ñamul caf ku ngëm waaye bëgg yonent bi nag dañuy yóbbu automatiquement nga dugg ci cadre bi nga xam ne mooy xalaalatul iman te foofu mooy sécurité bépp jullit boo xam ne yaa ngi dund ci daayira boobu nga xam ne xalaawatul iman fa la nekk dootoo sikki sàkk dootoo murtaat te ku duggul foofu nag saa su ne mën ngaa murtaat képp koo xam ne sa xol doo si tàqantiku li ngëm yàlla di saf mën ngaa jël bàyyi sa diini ñaata nit lañ fi gis ñoo xam ne mokkal alxuraan ba ba ba ba kenn xamul ni ko mokkale leen murtaat ñaata nit lañ fi te Égypte am na fa koo xam ne ànd naag mu xadis ba ki nga xam ne ñi gën a xam xadis ba ànd naag moom daanaka juróom-ñetti at bu seen biir laradaasi bi mooy toog mooy jàng téere bi daanaka mooy bëgg néegu sëñ bi Buxaari wu Muslim yooyu yëpp da koo mokkal mais mu tax boo demee ci internet bi léegi gis ko witti génn ci diine ji kon mu tax saa su ne mën na laa àll lu dul nag bu ngëm di duggee ci sa xol ngay tàqandiku te loolu li koy jox nit mooy xalaabatul iman yàlla ñu ko yàlla defal yonent bi moo wax ne ñett ku mu nekk ci yow di nga ñam xalaabatul iman cafka ngëm yàlla mu tudd ci mooy yàlla ak yonent bi gënal la leneen du dul ñoom ñaar aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين ومن ثمرة حبه صلى الله عليه وسلم النجاح في امتحان القبر bokk na ci meññat yi nga xam ne bëgg yonent bi da koy jur mooy examen bu rëy yi nga xam ne ku ne dina ci jaar exemple bu rëy nga xam ne ci biir bàmmeel lay doon question yi oral lay doon lu question bi ñu lay tontu da ca bokk man na bi juk képp koo xam ne da ngaa bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi sallam question yi lay laaj ci bàmmeel daa koy tontu waaye képp koo xam ne bëggoo ko woon da ngay am problème parce que ci bàmmeel bi hadis bi dafa wax ne dañ lay wan yonent bi nga gis ko ñu ne la maa taqulu fi hada rajul kii noo ci xam bu fekkee ku ko xamoon nga bëggoon ko doon ko topp da nga leen di wax ne huwa rasulullah mais su fekkee da nga ko cofoon di ko fawee di ko wutee àddina di caaxaan di wutee moom bu ñu la ko wane wan la photo nga gis ko ne la maa taqulu fi rajul da ngay wax naan ha ha laa adri te bu a torox daane ñeel na la boo xam ne loolu ci génn képp koo xam ne bëgg nga mucc ci lëndëmu bàmmeel bu la malaaka yi laajee nga tontu fexeel nga bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbiru bàmmeel nag ñun xam ngeen ne képp mu gaaw la mu yéex yonente bi nee na nañu bàmmeel su fekkoon kenn dina ci mucc kon dina doon saabu nu mu bi mu faatu juróom-ñaar fukki junni malaayika moo wàcc ci suuf keroog yonent bi nee na nit amul fu muy teg tànkam lu dul malaaka laafu malaaka la ndax néew bi kii faatu mu am ci boromam te boobu fanweeri at dañ la am daanaka ak lu teg mu ne bu fekkoon kenn dina mucc ci ci tàncu bàmmeel konoon saabu lu mu am dina ci mucc waaye kenn du kon bàmmeel bi la la mooy bëgg yonent xam ko yal nañu ko yàlla defal yaram beneen bi ci yi nga xam ne da nga koy jëlee ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci wàllu civilisation la wàllu état la bëgg yonent dafay développer xeet bëgg yonent dafay tabax réew bëgg yonent bi dafay naatal réew moo tax ñun ñu wax dañoo bëgg yonent bi ba pare bés ñu ñoom ñuy dellu ginnaaw kon mbëggeel gi dëkkuwul bu dëkkoo rek ñu avancé bu dëkkoo rek ñu avancé saxaaba yi yonent bi yar ba mu wér ko ne ñoom bëgg nañ ko laataa muy génn àddina dafa jàkkaarloog ñoom ne leen grande puissance yi ne ci àddina bi yëpp ci seen loxo lay mucc muy Kisra ak Ruum. ne ko pouvoir yooyu yëpp ci seen loxo la jëm seetal ma loolu tey ku la waxoon ne jamono dinañ dem ba Sénégal yërif Amérique xam nga ku la ko wax dee da nga naan biir yëpp noonu la meloon si jamono jooju bi leen ko yonent bi di wax Suraaqa mi nga xam ne moo ko doon dàqee pour jàpp ko bi muy gàddaay bi yàlla wanee mu'jiza yi dafa jàkkaarloo Suraaqa ne ko dellul nga ñibbi téeméeri gëlëm yi ñu la dig bés dina ñëw dinaa la ko jox dinaa la jox gëlëm yi fay la ko waaye demal ñibbi waaye man mënu maa jàpp suraata dem ñibbi yontu yàlla Muhammad dund ba génn ba ba ba bés ci xare yu mag yonent bi def fekk boobu suraata tuub bi yonent bi di séddale màng mi Suraaqa bi yëkkati bopp bi pour yonent bi gis ko pour moom da ko yonent bi waxoon fàtte na ko yonent bi si ko xool yaa Suraaqa fàtte mu fa inna haada yawm yawmu birrin wa wafaa kàddu ga ma la joxoon dinaa ko sàmm tey ba gis na daal di jël jëleen yi xar yéen bëri yëpp jox ko ñuy compter di compter di compter ba mat téeméeri jëlam yonent bi sa xaat yeneen daal ko koy jox keroog bi ko yonent bi wax na ko demal bés dina ñëw dinaa la fay dafa jaar booleel na ko kayfa anta yaa suraata wa fi yadayka wa fi yadayka siwaari kisra ne ko suraata mbaaru li ñu néew doole moo tax ya muy takk ak lam ya ci seen loxo lay mucc suraata mën bu gëm loolu tey fi ñu toll nii ku jëloon Macky Sall nii nga ne ko euh, fii ak fukki at yaay nekk président anéeru xam nga xel du ko nam noonu la meloon yonent bi génn àddina sallallahu alayhi wa sallam gars yi ubbiwuñ Faris Seydina Aboubacar ñëw ubbiwuñ Faris Faris fa la Kisra nekk Seydina Omar ñëw ci jamonoom ca lañ ubbi Faris daal di toj réew mu dugal fa lislaam takkaay yi bi doon takk ci ay jëlam nañ ko sëfee Iran te Perse indi ko Madinatul Munawwara bi ñëwee ñu jóor ko ci jumaa ji jullit yëpp génn kon ñoom lu yonent bi wax amul ci seen sàkk kon wax na ko dina am ñoom foofu lañ toll woon ci yonent bi mosuñu dute ci kàddu moom kat moo ko wax ba la wax su ko waxee day am bi bi bagage yi ñëwee or bi jamaay lépp ñu jóor ko Seydina Omar ne seetaloo ma lalu Kisra yi lam yi Kisra doon takk parce que bu buy dañuy takk ay lam ñu koy jéex di ko jéex di ko jéex ba génnee lam yi Seydina Omar ne ay na suwaaq ana suwaaq suwaaq na ko maa ngi di mënu ko ñëwal mu ñëw mu ne defal va et vient yëkkatil say loxo ne lii la yàlla waxoon yonent yàlla Muhammad yàlla dëkkal na mu def ko ba ñëpp gis ko mu tekki waay lan bi parce que góor bu dàq la l'islam bëgg yonent bi day tax nga mën a daaneel ay civilisation tabax ay civilisation Kisra boobu war na fa dugal l'islam mais tey jullit yi ubbi réew tënaleen pour dugal fa l'islam bu njëkk saxaaba yi buñ daan tukki bëgg yonent bi lañ daan yóbbaale moo tax dañ daan ubbi réew yi facilement jikko ju rafet ak leeru yonent bi ci lañ dugalee lislaam ci àddina bi mais da ngay gis ak jullit bu tukki tey dem seey bàyyi diina bàyyi culture am te iqbaal nee la ñi yonent bi yaroon ñoom bu ñu daan tukki buñ demaan ba fekk montagne taxaw dañuy soppaliku montagne dox ci kaw montagne bi buñ demaan ba gis géej dañuy soppaliku géej jàmm géej dañ daan dem ba gis réew yoo xam ne seeni xërëm yi ay jamaa la ak or ñu màbb ko jéggi ci xërëm gi jéggi or bi jàll duñu xool or bi duñu xool jamaa bi ne or ak jamaa su fekkoon ne keneen la ko gis ku dul ku yonent bi yàlla di nga ko jëm tëgg ko def ko ay càq di ko def am koor bët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bëtu ko day am nga am fit da ngay xam ne yàlla moo am kattan Amérique amul kattan France amul kattan boo jëlee loolu bés dina ñëw na lislaam duggee woon ci Kisra te ñaar bëgg yonent bi ñoo ko dugal réew yi yëpp lislaam dafay dugg insha allah beneen bi nga xam ne dañ koy jàngee ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy. bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay delloo ci nit ak niteem boo bëggee yonent bi da ngay nekk nit da ngay am yëg-yëg da ngay xam ni mbir yi di tekki fi ko war a teg parce que ñun tey boo gisee ñu am problème mooy concept yi mooy yàqal li ñu jàppee mbir yi ak nit ku tuddee doonu loolu bokk na si njuumte bi ñu gën a leen mooy li ñu jàppee addina addina boo bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa danga ci am beneen gisin bu dul bi nga xam ne tey moom nga ci am parce que addina yonent bi daa am ko jàppee am nu ko gisee boo ko jàppeewul noonu rek da ngay addina da nax seetal saxaaba bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yaral boppam nga xam ne ñaanal ko defar ko àdduna ak àllaxira yàlla ñaanal ko alal ñaanal ko Anas ibnu Maalik mi nga xam ne keroog bi muy jëm àddina daf leen wax ne bi nga xam ne yonent bi moo ko mayoon bu ngeen may suul ngeen ma suulaaleen kaan bi bu ma dekkee ëllëg nag yet bi laa yëkkati yaa rasulallah ne ko yaa rasulallah man maa ngi ni man sa anas bi bi mu faatu yel bi suudaale ko ak moom anas moomu àddina da ko doon mu koy ndaw parce que moom jàpp na ne moom àddina bii di ñëw mën naa dox diggante mag yonent bi ëllëg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko defee dafa am mooy jëflante ak àddina di nga ko tàggat di nga ko wut di ko di nga ko jaarale fi ko war a jaarale mais nag doo ko jaamu loolu la yonent bi rek moo la ko mën a jàngal saxaaba yi li Iqbal wax lu am solo la kunna nara al asnaama min dahabin fa nahdimaha wa nahdima fawqaha al kuffaara law kaana gayru lmuslimina la haadaha kanzan wa saada al xulya wa dinaara parce que addina boobu ci loxo rek ci la mën a yem bu bëgg yonent bi xasee dugg ci sa biir xol àddina amatu fa place mais àddina fi muy nekk mooy say loxo àddina nag bu fekkee sa loxo nga ko préparé doo ci boole riba doo ci boole fen doo ñàkk sa ngor doo ñàkk sa diine waaye boo ko téyee sa biir xol loo mën a def ci àddina rek pour am alal da nga koy am yal nañu si yàlla musal beneen point bi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay def ci fit da lay def nekk nit ku diin dafay def ci nit ki mu nekk nit ku am personnalité saxaaba yi dara feesul woon seen bët nit lu mu rëy rëy ci àddina jaaxalu leen nekkal nit ki gën a rëy ci àddina bi général Rustum àddina bi dañ ko doon coow ci ñaangaay naan dafa gëm doole kenn jëmewu ko ku koy gis daf koy waajal ndax di saxaaba bi ñëwal ci moom Rabi ibnu Amir la bi muy ñëw mbub moom sol ci digg yar bi la toll tuuti gàtt karaw bi sëq daanu ci gannaaw dara luy wane taar ak koom-koom feeñul ci moom bi mu bi ñu ko accordé bi bi muy dugg bi la jël du ko samp ci tab yi jàkkaarloo ko suñ daw ñëw ba ci moom rustum dafa jaaxle musul gis nit nit ku ko ñeme ci àddina mu ngi koy doogu gis parce que ci dugg si si moom bëgg yonent bi moo fees xolam laaj ko ne ko ma ñu leen tax a jóg gaaw ma fajalal jóg jóge fi lu ngeen bëgg wax leen ma ko ma jox leen ko saxaaba yi nag yow lii nga yor soxlawul ci dara nguur gi ak alal gi dara leen ci soxlawul inna allaha ba'athana li nuxrija man shaa min ibadati al ibadi ila ibadati rabbil ibad ñun li ñu tax a jóg mooy jàngale tawhid li ñu tax a jóg mooy dindi ñi ci shirk yóbbu leen ci wéetal yàlla wa min diqi dunya ila saatiha ci xat-xatu àddina bii ngeen nekk ñu jëlee leen ci dem leen ci yaatuwaayu àddina bi waaye yow système yi nga xam ne tooñ rek la ñuy def ñu libéré jaam yi ba kenn dootu nokkatu kenn ñun ñëpp ñu yem ci kanam dëkk ak yem ci kanam maanute looloo ñu tax a jóg tey bu doon ay jullit bari na jullit yoo xam ne bu ñu la doon Trump moo leen di yi dañuy mel mel ni ku gis yàlla du ñu ñëwee sikki doy na seen bopp toroxal seen bopp loolu ku gëm bëgg yonent bi du def loolu bëgg yonent bi dafay tabax personnalité nit parce que nit dafa tedd nit wartu torox nit wartu ñàkk fayda nit wartu doy mais booy taxante ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neex-neex boobu da ngay xam ne président bi am ko ministre bi am ko même boo dëkkee ci néegu ñax yow yaa woon gën a heureux loolu bëgg yonent bi rek moo ko mën a def su fekkee bëgg yoon texe àddina texe àllaaxira fi ngeen ko mën a amee mooy bëgg yonent yàlla Muhammad yàlla ñu ko yàlla defal yaa xéwal bi nga xam ne mooy bi ci gën a rëy nag mooy yowmal qiyaamati keroog bu nit ñëpp tiitee bu nit ñëpp jaaxlee. mooy ki nga xam ne moo lay am Seydi Hadj Malick nee na wa kullu naasi wal xibbi mawsuufun bi roxbin wa rahbati bés penc ñëppay ti ñëppay jàq ba mu des bi ki xam ne dafa soppoon bi bu soobee yàlla ñàkk tiitu soppe bi moo koy yóbbaale ba du tiit yàlla ñu ko yàlla defal ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا قبل الممات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله waaw